man de ki may bëgg a wayal mooy Dieng Saala man de bàkk naa la jiñ naa la yow sa bel Dieng. ndeysaan ku la lekk dee na la mandi ren ak genn réewoo sama waa ji sa bel yaa rafet jikko ndeysaan xaw ma dënkoo ji duwaane mbil ko yëri yaa rafet jikko sa bel. ndeysaan. na ko yar yaaram fecci ko sabel ndeysaan jooy dundal ba sëy may di baan doomu ndeyu paap maa dundal ba sëy may di baan sabel yaa baax baax yaay baax baax ci sa bopp moom a ko gënal li ñuy taggee doomu garmiyaan ci yow dundal ba sëy may di baan borom effort dundal ba sëy may di baan yàgg fi doo tardé sa bel doo tardé fii lépp a ngi tolloo tamoo noonu ma leen faale bilaay du ma leen faale yow daal bul leen ca kaw gi teew maa ko xam hmm. lislam gi teew maa ko xam diin gi teew maa ko xam sa ana borom tammi ñu ñaawul ñaangi ne ana xaritu Pape Malick su ma la woowee ci Pape Malick di nga ma woyoom de kati côté den soo say ba dundu mbendeene layoo bi jeex ana dee basi soo say ba dundu ba sant yàlla bu ñu xiifee néegam la dajaloo mu commandé ak xaritam bi ay da nga dafa baax bëgg sabar dem jël oto sabar jëndi lekk ñu indi wóor na yàlla cousin ah. li nañu àndee ba tey lépp jàmm waaw dañ ñaanal sëy bi barkeel yàlla defal ko jàmm moom ak borom gërëm amiin xam nga mu bokk ci sëy yi nga xamante moo bokk ci sëy yi gën a barkeel moo tax ngeen soo xool loo mel asamaan ak suuf kenn bañ a xaj seen diggante barkaala

rafet jikko ndeysaan xaw ma dem ko jooju duwaane mbil ko yari yaa rafet jikko sabel ndeysaan mbil sabel ndeysaan sa baay ba la ñuy may di baal doomu ndeyu paap maa jeeñ dundal ko say may di baal sabel yaa dundal ba sëy may di baawaan borom effort. dundal eh. ba sëy may di baawaan yàgg fi lool. ba tax na yow doo tardé sa bel yow doo tardé fii lépp a ngi tolloo. te noonu bilaay. du ma leen faale bilaay. ñëwal. Ah. loolu ca kaw. vraiment. fula gi ci yow maa ko xam. Hmm. lislam gi ci yow maa ko xam. macha allah diin gi ci yow maa ko xam. Sobel. Ah. ana borom càmmiñu ñaawul ñaa ngi ne ana xaritu Pape Malick su ma la woowee ci Pape Malick di nga ma woyoom deet ka ci ko déggan soo say ba nu mbendeene layoo bi jeex ana dee basi soo say ba na ñu xiifee néegam la dajaloo mu commandé ak xaritam bi ay da nga dafa baax bëgg sabar dem jël oto sabar jëndi lekk ñu indi wóor na yàlla couchant ah. li nañu àndee ba tey lépp jàmm waaw dañ ñaanal sëy bi barkeel yàlla defal ko jàmm moom ak borom këram amiin xam nga mu bokk ci sëy yi nga xamante moo bokk ci sëy yi gën a barkeel moo tax ngeen soo xolloo mel asamaan ak suuf kenn bañ a xaj seen diggante barkaala amiin teint noir yow yaa fi